je waaw mbokk Sénégal man le frère xarit docteur Dieye moo ñëwaat waxtaan ak yéen gars damay def vidéo bi rek juste pour faire un benn de cœur et puis gis di rafetlu gis naa ne sama que yu bari def nañ ko comme on dirait la répétition est pédagogique gars yi situation bi c'est très compliqué au niveau du Sénégal actuellement les CT sont saturés hôpitaux yi saturés réanimation saturée euh, amatul place donc hôpitaux yi boo leen fa demee am na ñu bëri ñu ñëw médecins yi dañ leen xool lu ñeen mën a mënul lu ñeen dara parce que amatuñu place pour jëleen en charge donc situation bi dafa graaw gars yi oxygène bi aussi xam nga ne malade Covid dañuy soxla oxygène bëri donc lépp lu fa mënti am aussi du doy parce que li ñuy utiliser ci oxygène moo bëri. donc voilà loolu aussi ñuy ñaax esprit état bi gaa def na ci ay jéego mu gën ko yokku et puis benn instant aussi faut mën na euh, faire appel aux industriels aussi ñoom ñu mën a jàppale leen parce que industriels yi aussi am nañ oxygène te oxygène bi mën nañ ko di jéem xool ñu ko defee oxygène médical. Voilà, loolu ci ben parenthèse donc gars situation bi c'est très chaotique il y a beaucoup de décès les professionnels sont fatigués Les benn instant aussi il faut moins am ce qu'on appelle benn sursaut national il faut que ci nekk xool na yow affaire bi nan lañ pour appeler euh, les professionnels de santé aar suñu bopp aar suñuy suñuy proche parce que situation bi jéggi na voilà man je reçois beaucoup d'appels mais sama xel mi yëpp sama xol bi yëpp yi fa la parce que situation bi doy na il y a beaucoup de décès

wala dalu suñu proche on se sent pas concerné non buñu xaar ba yegg si foofu affaire bi ma ngay circuler ku ci nekk ci yow boo xoolee dégg nga ñu ne tàgg nañ la benn nit wala nit ñi am nga benn koo xam ne la dafa Covid donc affaire bi du ay caaxaan virus bi mi ngi fa le variant delta mi ngi circuler def ay ravages donc benn instant aussi dafay laaj ñu def benn sursaut national benn prise de conscience ñu xam ne affaire yi waxuñu ko pour euh, tere nit ñi wala benn affaire non terewul kenn mu terewuñu kenn mu génn na nga.

vaccins c'est quelque chose qui ont montré leur efficacité vaccins sont très efficaces les études ont montré que vaccins est allé protéger contre les formes graves on leen les en Angleterre c'est cas caille brune, Mais mais cas de décès c'est brûle. c'est très peu par rapport au nombre de cas France aussi y les cas yi New ngi Mais mais nombre de cas réanimation est le peu de personnes qui nekk réanimation mais c'est des gens qui n'ont pas été vaccinés Sénégal problème bu c'est vrai que on n'a pas assez de doses vaccins il faut que ben instant ñu prioriser ko prioriser bi commencer les personnes qui ont des dañu am euh, les comorbidités qui ont priorité bi ont ñi nga hypertension diabète ak aussi ñi nga des ne pour prioriser leen ont mettre en place des tests rapides tests rapides sont ce qu'on appelle les tests antigéniques Ils permettent de voir s'il il a été en contact avec le virus ou pas Vous faites nag kooku en contact avec le virus koku nagn ko prioriser pour defal ko vaccin bi nga xam ko koo xam na mës na en contact avec virus koku mën na xaar parce que instant il faut dire les choses en hein. nombre de cas ma macha allah virus bi ma ngi circuler donc il y a beaucoup de personnes yo xam au moins ils ont été en contact donc ñooñu aussi yaakaar nañu am nañ benn humidité boo xam ne mën na len protéger pour l'instant donc ñooñu d'une priorité donc gars yi nañu delloo xel yi delloo si xel yi euh, àndandoo xol li ñu défé ba jëlee fi mbas waaw dina ci am solo parce que la situation bi c'est grave quand même hein. fu nek ni voilà doy na waar quoi mais di ñaan yàlla rek suñu borom musal ñu ci mbas mi ah di ñaan yëpp ñi nga xam ne ñii dañoo feebar suñu borom euh, saafaral seen feebar bi waaw te di di masawu ñi nga xam ne génn nañu àdduna di leen ñaanal suñu borom xar leen àjjana